بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم نوغي زيار سونو خليفه بعد المختار ابن سينا مجون ابن سينا المنتظر منتظر دي نيو وا كير ييب دي نيو سونو سانغ سونو سيرين سينا عيسى ابن شير عبد الله دي واخ سي تورو كيغا خاني مو سونو مدير دي دومي سينا عبد الله سينا علين ميغا خامني مو جون دي جينيرال سي انستيتو اسلاميك بي نيك سي ملكه ñu dippeeku ti suñu waajuru tedd wa Chérif Abdoulahi fan yi yëpp nag ñu nekkoon ci ay tournée ginnaaw ci diirub ñetti at bi ñu ubbee école bi ñu doon na nag ñu seeti xalifa général bi ginnaaw ba ñu jaaree suñu bunt muy nga xam ni Seydina Issa njëkke woon ci moom ci àllarba ji Seydina Issa fekkoon ko Cambérène xale yi jàng alxuraan ci ay kàddu ci ci la ñu paree seeti maam Libaas Mbaye Ibou Seyni ko it xale yi defaat la même chose waxtaan ak moom ci daara ji yëkkati alquran mu jël ay kàddu teg ko ci ñun suñu paree ci lañ préparé nag pour seet suñu bàyyi bu tedd bi bi kat mooy xalifa bi bàyyi dudu maxtaar fon ko ajjuma ji nga xam ne moo weesu woon ci bi ñuy jullee tisbar ba noppi ay diggante 4 heures seeti ko waxtaan ak moom ci nga xam ni mooy mbirum daara ji ñett yooyu mooy yi nga xam ni moom la njëkk tàmbali li tax ñett yooyu nag ku wax daara Serigne Ablaye gisitoo Serigne Ablaye sa buntu mooy tàmbalee ci taawu Serigne Ablaye mu Seydina Issa ku wax Serigne laay wax Baye Ibou Séni ñu bokk benn waajuru góor moo tax ñu duggoon ci maam Limaamu Thiaw ibnu Bachirif Ibou Séni Lahi ba ñu fa jógee nag ci la dem ci xalifa bi xalifa bi nag di santal yàlla bu baax di nuyut suñu mag yu tedd di suñu sàng di suñu sëriñ nga xam ne yàlla moo yombal lépp muy sëriñ jal mu sëriñ Baye Ran Thiaw ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara bu baax a baax yii mooy yi nga xam defoon nañ ko ak xale yi ci daara ji waroon ko ni woon tey rek dañ benn genre synthèse ci kër gi ba nit ñi xam fi ñu yem tàmbali ci mbir la booy xam nit fas nañu yéene incha allah ci njabootu Selew Ngor nekk ci kaw suuf yëpp suñu bàyyi Mouhamadul Amin suñu bàyyi Libaas suñu bàyyi Imam Makhtar ak suñu mag yëpp incha allah fas dem ci ñoom noonu lañ ko fas yéene nag jaar ci suñu mag yi bopp yi Seydina Madione Serigne Mamour ak euh, Baye mbay ak ñu Baye Ibou Seyni ñoom Idrissa Lahi ak njabootu Ahlul Bayti yi yëpp. fas yéene dem ci ñoom daara ji nag am na njàngum alxuraan ci diirub ñetti yaat ba ñeenti at fas yéene xale moo alxuraan beneen bi am na ci programme mu EFA muy français ak arab bi nga am ne programme mu état la. ci biir daara ji su ngeen xool def na ñetti passion moo ci nekk ñetti pàcc yi lan la am na ci xale yoo xam saa bu nu xëyee diggante huit heures ak midi lay jàng defaat trois heures ba cinq heures am na ci ñoo xam ne ay demi pension lañ. dañuy xëy suba day jógee seen kër fii la ñuy nekk ba six heures ci ngoon am na si ñoo dañoo dëkk ci daara ji dëkk ci daara ji nag seen lépp ci daara ji la nekk seen añ seen ndékk seen reer seen fóot seen consultation mi ci mën a am ci biir it daara ji mujj lépp nekk ci moom taxaw ci ak xale yooyu xam ngeen ni njàng bu alxuraan amul prix amul prix ñàkk prix weesuwul képp koo xam ne ngi fi sa doom kon la ngay def ci biir ji ay contribution nga def ci biir di ci taxawaat C'est moy kàddu yi nga bi la personne morale di Ali ibn Cheikh Abdoulaye ko yëkëti ci nit ñi ñu li moy bi moy illa bi di gërëmit bu baax a baax képp koo xam ne sa loxo yaa ngi biir kër gi daara la joo xam amaguñu tabax amaguñu pàkk te bëgg nañ xale am pàkk bu ñu dëkk ndax li ñu wax ci daara yëpp ci kër gi diiru bonne volonté di doxe képp ku ci man te dimbali ñu ci rek loo ci mën def ko ci ndax lebal Serigne Ablaye yomb na ndax Serigne Ablaye am lu mën a fay nit kon ñu ngi tàllal loxo ñëpp.